asalaamaaleykum mbokk yi safo 7TV bisimilah ci xibaaru digg bëccëg gi ci kàllaamay wolof moom mbégte janoo ci ak Kajoor Cissé maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Suzanne di nuyu mbokk yi ñuy teewlu. ay ca ñu jukki ponk yu gën bokk na ci bis tey la Macky Sall jàkkaarloon askanu Sénégal doon leen xamle ne dootul bokk ci euh, élection palak njiitu léew yu ñu doon euh, dëgmal mu yemoon ak ñetti fan euh, weeru juillet ci atum deux mille vingt-trois nag laata mu cay addu juróon na coow ba xam ne dina bokk am déet donte nag adduna lu ni mel teewul nag réew mi tàngoon lool daañu dal. dellusiwaat uh, ci yooyu les xew-xew ci bile jotaay xibaar jëwriñu eh, ilimaanu jëwriñ yi Ousmane Sonko dafa daal di eh, tànn lu toll ci ñaar fukk ak eh, benn ci ay nit ñu war ko fas yéene ko xelal ñoom nag dinañu doon ay référent de des ministres naka noonu secrétaire d'État waaye mu mel ni ndogal boobee mu jël méngoowul ak li nga xam ne moom la charte ndey réew mi maye kak xamle di Babacar Guèye moomee ngeen ni teewlu mbir moomee itam daañu ci addu ci bile jotaaya bokk na itam ci fitna ga jiboon fële ca Medina Gunas ci diggante ñaari askan euh, kilifa gii di xalifa général bu famille euh, omarienne nag euh, jug na fas yéene fa daan daa daa di fay dox doxu jàmm ci diggante ñaari daanaka kilifa diine yi fu kenn ku nekk mu dem waxtaan ak yow ngir fexe rek ba jàmm dellu siwaat ci foofee nga xam ne moom mooy Medina Gunas mbokk yi ponk yi moo gën a fës yaatal gi bu ngeen bu ñu noppee léegi ñu ñëw ki yeneen leen bu baax a baax teelu bi ànd beeg 7TV tey ñetti fan ci weeru sulet suñu fàttali ma woon di Macky Sall kàddu goom woon ñetti fan ci weeru ne daal du bokk ci joŋante njiitu réew yi wan ginnaaw bëgg-bëggub ne teelu mandat ginnaaw nag ab xeex ku tar goo xam ne ay kuréelu politique daanaka ci la ñu newoon. moom àdduna na du bokk waaye teewul euh, coow li jib ginnaaw ba mu toxalee élection yi mu mel ni rek axlu euh, politique bi yëpp euh, yëngu woon na ci jamono jooju ñu dellu siwaat ci yooyu lee xew-xew ak Pape Malick Thiam sama dogal bi ma xalaatee ba noppi mooy du ma nekk candidat ci élection présidentielle yu 2024. 2024. discours bi daanaka mu dakkal fu président Macky Sall moom mu defoon ko ci 3 juillet bébé su doon mandargaal Macky Sall lu mu wax du def troisième mandat ñu doon ko jiiñ ni dafa bëgg a toogaat ci nguur gi loolu nag lu ñu jàpp la ndaxte lu njëkk la ci histoire politique Sénégal amul benn njiitu réew boo xamante ni moo nekkoon ci nguur gi bàyyi ñu ko doon jiiñ mbirum troisième mandat lu ñu jàppale tamit ndaxte lu njëkk la président de la république bàyyi nguur gi organiser boppam ay élection datu histoire jur leneen loo xamante ni dafa tiis ci Sénégal reporté élection yi moo ci topp bi nga xamante ni juróom-ñaari weer lañ ci teg ñetti nit ñàkk ci seen bakkan mu jur ay crise institutionnelle instabilité am ci dëkk bi ay jàmmaxloo yu métti métti ci état dogal yi nga xamante ni moom la jël li ci topp moom mooy ndax dinañ def élection yi waw wala déet élection yi nag mu wujj ama conseil constitutionnel dogal ko mu nekk loo xamante ni tamit ci histoire politique Sénégal lay am datub 3 juillet 2024 boobu ba léegi mu nekk bennaat histoire wax jàpp ko bu président Macky Sall def beneen bi mu jàppat ko ndaxte lu ñu xaatim la ci Sénégal nu muy doxee ak tamit lan moo tax loolu di firndeel li nga xamante ni moo ubbi élection présidentielle yu 2024 tax ba nga xamante ni président Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko di jiite tey ji jamono ji nga xam ne eh, ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye jamono ji ne ci bopp réew mi di woy liggéey wa waaye daal eh, li nga xam ne a la jot gu njëkk gi daal di def tabb ñaar fukk ak benn ci ay xeltukat yoo xam ne eh, ca daa ñu gunge yenn nag ci ay jëwriñ yi nga xam ne daanaka am nañ rek lu ñu leen dénk ci doxalinu réew mi daanaka jàppale ne ñu baree bari daan nañ tey sampi laaj. bokk na ci ñi nga xam ne dafa tey seen xel muy kii di Babacar Gaye nekk kànga candidat ci parti démocratique sénégalais la mu xamle mooy Ousmane Sonko amul boobu lépp sañ-sañ naam sax mën nañoo tàbb nit ngir mu coordonner liggéeyu ministère yi waaye euh, jëmm ji nga xam ne moom la leen euh, jox ak dayo bi daanaka euh, li di constitution bi mayu ko ko Matar Bari ci ay faram-fàcce. lu ëpp ñaar fukki conseillers nommé nañ leen fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin foofee ca primature ñu war a nekk nag ay référent ci ministres yi ak secrétaire d'État yi. mu doon loo xam ne nag lu jàddu la bu ñu sukkandikoo ci Babacar Gueye ki fi nekkoon député jàpp ni Ousmane Sonko mën na nome lu ko neex ci ay conseils ngir mën a coordonner action bu gouvernement bi. bu ko neexee mu am conseiller ba am ci téeméer dañ ne équipe bi nag am na ko ko war a jiite mooy capitaine bi comme moom mooy capitaine bi moom moo war a coordonner li nga xam ne moom la équipe bi di def su ko neexee nag moom am téeméeri conseiller bu amee lu ko jaaxal ci gouvernement bi ni muy doxee mu laaj leen seen xalaat loolu la conseil di jëriñ. wante nag conseillers yooyu bu ñu leen defee ay référent Ousmane Sonko dafa jéggi li nga xam ni moo di ay prérogative am te itam day jalgati li nga xam ne moo di constitution bi. dafa mel ni dafa jalgati maanaam suñu charte réew maanaam li ñuy wax constitution ndax euh, euh, Ousmane Sonko premier ministre la dafa war a jox cër ministre yi xam ne moom ak ministre ñoo bokk décret bu leen nommé président euh, Diomaye Faye mooy nommé premier ministre mooy nommé ministre moom rek moo mën a jël décret pour nommer ministre bu leen nommé dañuy former équipe. Babacar Gueye gis na ni itam ndogal bi nga xam ne premier ministre jël na ko dafa nar a indi jaxasoo ci biir gouvernement bi ndaxte conseillers yooyu ñoo nar a nekk interlocuteur direct ak ministre yi nga xam ni président Bassirou Diomaye fay moom moo leen nommé. moo référent boobu mooy yéen ñii de ministre yi bu ngeen di waxateeg man ëllëg jarul ngeen di yegsi ci man mën ngeen yem samay bëkk nekk. mais munoo jël ay conseil technique bëgg leen jox cëru ministre ba ñu nekk naataangoo ay ministres yi ñu nommé pour ñu nekk seen i référent ay collaborateur d'accord naa mais référent moom c'est autre chose référent mooy nga référencé ci maanaam nga lépp looy def daal fexeel ba mu méngoo ak lii nga xam ne man moom noonu laa ko tëralee moo tax dama jàpp ne Ousmane Sonko dafa juum foofu. moom mi nga xam ne nag ab député la woon am njortu ni sax ne Ousmane Sonko dafa bëgg a taxawal ca primature li ñuy wax ab gouvernement parallèle la. lui il doit pouvoir traiter directement les ministres mais tel que c'est parti j'ai l'impression que le pres euh, premier ministre Ousmane Sonko veut créer à un autre gouvernement avec des personnalités qui ont un rang de ministre. ñu toll ci ñaar fukk ak benn yooyu les professionnels mënuñu am li ñuy wax titre ministre li ñu nekk nag mooy ay référent ci yenn question yu technique yoo xam ne dafa laal seenub secteur loolee dina tax ñu am ab lëkkaloo bu am solo ci biir primature. yenn ci ay liggéeykatu RTS ñu mer ba futtu seen njiit lu yees yi di Pape Alé li ko waral bokk na ci jëlee ndogal am lu mu dakkal ne nañ daal loolee nag du dëgg du yoon ñu ki démb ngir métit lu ko daanaka seen buntu màkkaanu liggéeyukaay lañ ko doon fësalee mbootaay yi ñu fa am yëpp liggéeykat yi ñoo daal di tënku ci ab kuréel ngir xeex seen aq ak seen i yelleef la ñu xamle nag mooy dañu dem euh, ba sës ci boobule xeex ba ñuy xeex ak seen njiit Non à l'arrêt des CDD touche pas à nos salaires le vampirisme ne passe point lii des slogan yi nga xamante ne koy lire si yile pancarte yi nga xamante ne agent wu chaîne nationale yi daal di nañ koy yor ñu daal di tàkk ay sagar yu xonq yile agent yi nga xamante ne dañoo daal di dajale si collège des délégués de la RTS ñoom ñëpp nag ñoo ngay ñaawlu décision yi nga xamante ne directeur général bu bees bii di Pape Alé Niang daal na ko jël. D'abord il élimine l'avance les prestataires qui recevaient 300 250 000 il les a rétrogradés jusqu'à 100 000 francs wàññum salaire boobu wàññi salaire bu ñu ko wàññee danañ ko jëlee 2024 danañ ko yóbbu ba 2005 loolu ndax mës nañ ko gis salaire yu ñuy en arrière 20 ans yow léegi yow waxoon ni da ngay wàññi sa salaire waaye da nga ni da ngay wàññi salaire borom 300 000 yi 400 000 yi loolu tamit agent yi nee na duñ ko mës a nangu li ñu bëgg mooy accord d'entreprise boobu ñu topp ko à la lettre ndax fayu nañ ko ñetti weer union nationale des syndicats autonomes du Sénégal di UNSAS daal leen jàppale si bile xeex te nag fas yéene wu ñu bàyyi mu sedd daal di nañu sax tëral ab plan d'action. bu njëkk bi mooy dinañu saisir la direction du travail. bu loolu weesoo d'ici demain dinañu saisir les juridictions compétentes maanaam dinañu introduire benn recours au niveau du tribunal du travail en référé social référé d'urgence heure par heure dans une semaine bu dellu ginnaaw ñu déposer préavis de grève. ci wàllam kii di directeur général bi daal di justifier yi les décisions ab risque incidence financière annuelle bu toll si un milliard huit cent millions de francs CFA Pape Alé Niang daal di xam na ni que amul benn couverture budgétaire bi nga xamante ne mën na garantir yi les dépenses te nak mën na indi ay gàllankoor si doxalinu entreprise bi. kuréel gi di l'union nationale des syndicats autonomes bu Sénégal ñoom itam dem nañ ci RTS jàppale ñi nga xam ne ñoo doon na ñaxtu ñeel dogal ki nga xam ne Pape Alé ñoo jël ko. Pape Ibrahima Diallo moom la ñu daal di dénk kàddu gi la mu bëgg nag mooy euh, nguur gi daal di xoolaat taxawaayam ci mbir mi. am na yeneen yeneen secteurs yoo xam ni dinañu def benn marche national marche bu mag bu jëree sax ñu def une journée nationale d' parce que secteurs yu ñu agressé bari na laal nañu SED'Eau laal nañu collectivité territoriale laal nañu justice laal nañu port autonome Dakar laal nañu santé ñu ngi laal rek dafa mel ni daal sunu gars yi ah quand ça c'est quand même regrettable et on n'attendait pas de cela de du président de la République monsieur Diomaye Diakhar Faye et monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko parce que nous les interpellons ce sont les plus hautes autorités de ce pays nous les attendons en tout cas sur des actions concrètes au lieu de réduire les avantages des travailleurs. ci boobee jamono ci ay AIBD foofee nag directeur général ba daat nay tontu yéen ci ay syndicat yu nga xam ne dañu doon ngàññ doxalinu liggéey ba jàpp ne rëq-rëq yi daal bëri na. yenn ci ay avantages yoo xam ne euh, amoon nañ ko ñu dakkal leen ko loolee daa doon lu leen métti lool waaye njiitu ay AIBD daa di addu ci mbir mi di xamle nag ne lépp loo xam ne euh, daanaka euh, yëkkati na ko ba daa di koy teg rek dafa fekk mu méngoo ak li nga xam ne moom la gouvernement bi daal di santaane. mu nekk ab communiqué bu jógee foofee ci aéroport international Blaise Diagne Cheikh Bamba Dièye daal di xam ne ni dafay indi ay précisions lu jëm si yenn déclaration yi nga xamante ne presse bi daal dina ko fësal mu nekk ay déclaration yu jëm rek si wàllum réduction avantage yenn cadre yu liggéeyee foofee moom DG AIBD daal di xam ne ni ko décision yu ñu jëloon dafay tax rek ñu établir bi daal di itam xam ne ni que daal na ay correctifs ñi nga xamante ne dañoo wax te nag mu daal di xam ne ni que ay jafe-jafe lañ daal di nemmeeku si biir entreprise bi waaye nag direction générale bu bees bi daal di rek xam ne ni que donte ne que ñoo ngi amal bile audit waaye nag ba tey dara changé wul si doxalin bi ndax salaire yi ñoo ngi leen di jot si date bi mu wax te nag ñu ko méngaleeg code du travail mu daal di préciser itam que retard ñeenti weer yi nga xamante ne nemmeeku nañ leen ci indemnité yi loolee nag moo jiitu prise de fonction kii di Cheikh Mamadou lay Dièye te nag dina indi ay solution si bii dee jafe-jafe direction générale bu AIBD nag daal di xam ne ne que assumé na bépp dogal bi nga xamante ne daal dina ko jël te nag loole yépp nag ngir defar la rekk ak saafara jafe-jafe yi nga xamante ne secteur aéroportuaire mi ngi koy dund. addu jëmale ci a Plateau jàppale ne nag mairie ba dana daal la ñuy woyal seen opération désencombrement ba nga xam ne ñu koy amal ci marché à Petersen tax ba seen ay ndaw daanaka ñu yabal leen ca barab boobee ngir ñu woyal ndogal bi. la ñu leen sas tànk mooy fexe ba bu kenn lal fi nga xam ne waru faa euh, lal euh, ay ndawalu lu mairie nag taxaw bu dëgër ci boobu lépp ndogal waaye teewul ñay jaay itam yor seeni feem rek di xool euh, nees man def ba daal koy jaay ñu ànd ceeg jëmm mbay. mbedd mi ñu tuddee Alkaïda fi ci marché Petersen tàmbaliwaat na di dund gannaaw bi fi mairie bi amalee ab opération de déguerpissement jëlee fi marchand ambulant yi waaye ñoom ñi demoon ñëpp tàmbaliwaat nañu di lal bila yoon nag fee la ñu teg table yi di lal ci suuf bàyyi tali bi mu féex. lal bi boo ko gisee nii taabal lañ doon teg mais soxla dépasse moo waral lal gi donte agent maire yi ñu ngi fiy jaar du ñuy ne jóg leen jóg leen mais bu ñu ñëwee nu jóg comme ay taabal lañ doon teg nag am na ramas nee na ñu ñu jóg bàyyi nañu tali bi bu baax ñu ngi nii lal di jaay. kenn sañul lal marchandise am yëpp ku mel ni Baye Samb moom tuuti la jël si ay marchandise teg di jaay leneen li mu nëbb feneen lal na si anam goo xam ne suñ ne bëxër ñit rekk dafay daw yóbbu ay bagage am agent maire yi duñ ko mën a teg loxo yile commerçant xam nañu ne amuñu droit. di lal si tali bi. waaw ah, ñun xam nañ ni tali bi ñu nekk jaarul mais ñàkk pexe. lenn dong la ñu bëgg mooy ñu ubbi leen marché bi nga xam ne maire alindooy Ndoye daf ko tabax ne woon da leen koy jebbal kon ñu ngi sàkk bu baax monsieur le maire Alioune Alioune Ndoye mu ubbil nu li nga xam ne moom mooy marché bi. ñu dugg ci ngir suñuy bagage mën a sàmm loolu rek lañ amul lu ñuy wax. fi ñu taxaw di wax sax la agent yi jóge fa li ñëwaat di leen yëkkati. ku nekk di daw ut foo aw. ndax ku ñu jàpp di nga ñàkk say bagage ba noppi di nga fay alamaan. maire yi bu Dakar Plateau mel na ni daal li mu ŋànk fas yéene wu ko yàbbi ak opération déguerpissement yi muy woyal ci Dakar Plateau jéem nañu nag am maire bi waaye mënuñu ko jot ki nga xam ne sax moom la ñu dénk wàllu opération de déguerpissement yi nanguwul yi yàbbi ci mbir mi. xibaar yi dañuy yóbbu ci diwaanu Ndar ci baccalauréat atum 2024 gi jël nañ nag seen matuwaay yëpp ngir examen bi jaar yoon. gouverneur ba di Alioune Badara Samb daal di xam ne lu ëpp fukki junni euh, ndongo daal ñuy bokk ci yooyu lee euh, jongante euh, donte sax nag am na ñenn ñoo xam ne nemmeeku nañu seen ñàkk teewaay ci tukkib nemmeeku boobu wala boog doxub nemmeeku bi mu ngi ci àndoon ak ki nga xam ne moom mooy Mafal Der nekk inspecteur d'académie bu Saint-Louis tey dañ ñëw fii ci lycée Charles de Gaulle fa lañ mujjee jaaroon nañu lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall ñu xamee ko ci FEDER bu njëkk ba ak lycée Ahmed Fall ñëw xool ci baccalauréat général bi Euh, fan lañ ci toll ci démarrage bi épreuve bi démarré na tey ma fàttale ni baccalauréat technique moom passé na euh, danañ ci dellusiwaat ñu profité ci félicité inspecteur d'académie bi ak mboolem jàngalekat yi nekk ci nag par rapport résultats yi nga xam ne ndax am na ko tey nag ma fàttali sax d'ailleurs am nañ fi presque onze mille et quelques candidats yoo xam ci région bi na bi ñu ñëwee constaté nañ que épreuve bi démarré na président de jury yi nga xam ne Ndakaaru lañ leen tànne université Cheikh Anta Diop koy tànn ñëw nañu surveillant macha allah ñëw nañu doy nañu élèves également am na quelques absences yoo xam ne bu ñu paree dañ ko saytu xool lan mooy ko expliquer. Sénégal gi yëpp ci bac bi nag ñun am nañ ci onze mille quatre cent soixante dix candidats ñu ngi leen def ci trente trois centres principaux dans toute la région de Saint-Louis y ko jusqu'au Fouta et aussi euh, euh, dix sept centres secondaires alors ci loolu nag euh, remarqué nañu ni. bu fekkee ne disposition sécuritaire yi nga xam ne moom la nguur gi santaane commencé nañ ko ci kaw yóbbu maal yi boobu gendarmerie police nangu nañu si leen bi leen ko oto gouverneur santé ak ñun ñu leen di topp ci loolu ba yóbbu maal yëpp ba fu mu nekk ba tey ji kenn signalé benn problème ci boobee jamono ñàkkum xëy mi nag Sénégal ba tey mi ngay wëy ndax kuréel gi nga xam ne mu ëmb ñi jàng ba noppi am seen i lijaasa seen i jafe ña ngay wëy di ko ŋàññi. nee ñu nag faaw njiit ñu gouvernement bi bokk daal di xoolaat anam ya ñuy euh, jëlee nit ñi ñuy liggéey ci administration bi waaye itam tëggaat bu baax anam ya ñuy doxalee lii di concours yi. chaque année. c'est des milliers de jeunes ñooy am seen diplôme au minimum trois cent mille jeunes ñooy quitté ci école et institut privé yi ci université publique yi di nekk ci marché de l'emploi di uti xëy mais ñooñu noonu kenn fulawu leen Sénégal nu ngay gën a sori nu ngay gën a am diplôme bu kawe noonu ngay gën a nekk ci difficulté pour mën a insérer wu concours yi ñu ngi fii mais concours yi nan ni ñu koy espacé baaxul ci ñun dinga gis benn concours bu war a am ren war a am déwén mu toog 4 ans concours boobu amul boo pare ñu teg ay ay limite d'âge est-ce que yooyu noonu ñun buñ ci nekkee ren nga am par exemple benn vingt-neuf ans ñi toog trois ans organiser wu ñu concours bi te lee nañu limite d'âge bi trente ans est-ce yow disqualifié wu la wala ñu naan pour nga mën a def tel concours il faut nga am tel taille yàlla mooy joxe moom mooy joxe moom mooy sàkk ñëpp moo leen naan taille bi nga war a mën a am taille bi nga am mais est war nañu mën a sukkandi ci loolu noonu des valides personnes ñoo xam ni c'est des intelligentes personnes nga mën leen disqualifier tout simplement parce que am ñu addu eh, jëmale ci Medina Gounass eh, foofee nag fi nag nga xam ne judi woon nañ ko laata ñuy wàcca tabaski bi lee nag jàppaleen ne jafe-jafe yooyu kilifa dine daan nañ cey dugg bokk na ci yooyu lee kilifa dine xalif eh, général bu famille omarienne bi moom yi nga xam ne dox na tànku jàmm ci diggante ñaari foyer religieux yooyu noonu ñu ànd ceeg Ousmane Ba ci ay leeral ay tànki jàmm ak ay kàddu yuy sàkku jàmm la kii di xalif général famille omarienne yëkkati ca Medina Gounass ngir jàmm mën a dellu si diggante askanu kër diine bile ak ñii di waa Fuladu ginnaaw bi nga xamee ne amal na waxtaan ak ñaari xalif yi waaw dañuy sàkk ci ñoom rek euh, ku ci nekk jox sa gëdd moroom waaye tamit di ñaan xol yi gën a dal xol yi féex ndax lii nga xam ne kat moo fi xewoon mu ñu mën koo romb waaye tamit euh, di sàkku rek ne li nga xam ni xewoon na fi mu bañ fi amati mukk njiital diine bi di kontaan lool ci jéego yi nga xam ne ñoom ñaare nangu nañ ko ngir jàmm mën a dellu si waaw sàkku nañu ci ñoom tamit ci ah, xalif di Fuladu mu dem seeti xalif bu naa Gunaas euh, nangu nañu tey tamit dañu wax ne daañu dem waxtaan ak Thierno Amadou Tidiane Ba ngir ñu baal ko àq ngir rekk jàmm gën a sax. naka noonu kii di Thierno Madani Tall di artu ci message yu féewale yi nga xam ne ñenn ñi ñu ngi koy jaarale ci xarale yu bees yi. waaw message yi nga xam ne ay message yu bon la yooyu ñu koy jaarale ci jumtukaayu xarale yi dañuy sàkku ci ñi nga xam ne kat ñoom ñoo koy sànni ñu bàyyi ko te seen xel di kat ndax gis nañ ne li nga xam ne moo fi amoon kat naam ñàkk déggoo la waaye jarul daal di xam taal bi li nga xam ne daal lañu war a def muy fay ko. te mu jaar fay ba faw at boobe nag ñëpp war ko dégg ngir li amoon bañ amaat ci diggante ñaari askan yi nga xam ne lépp moo leen boole ko ma doon taarix wala sax diin wàllum tàggat yaram ci xibaaru lamb yi jàpp leen ne Ada mi nga xam ne dafa rek tegle yéen ci ay yoo xam ne ah, teg nañ ko ci kawam loolee nag boo moytu dina gàkkal carrière am. Ada nag donte xarañ na lool ci wàllu lamb waaye ñu seetlu ne saa su ne dafay xel di salfaañi lépp loo xam ne ah, charte la bu CNG daal di ah, tënk ba mu koy jural saa su ne ay jafe-jafe mu mel ni rek su mayul loolee mën na gàkkal li di carrière am ñoo ne ci Grégoire Sambangom. malfaiteur aada ñëwati na aada defati na tegati nañu ko ay daan bu toll ci benn at CNG daanaka jëmmal na ko negeen i démb waaye yëf yi bettul kenn wala boog saful dara ndaxte yàgg nañu ko dégg ci moom mi bàyyeekoo ca fas bennoo la CNG di xamle moom mooy rek dafa sal salfaañe règlement moom moom mi ñu duppee borom ndakaaru mel ni jamono ji borom suspension la wala boog borom tardement moo sax analan moo dal aadafa sax laaj la rek boo xam ne na ku lëmba ñu ngi ko samp moo ne day Ada Fass mën na bëre am na mbooloo tamit ay soppeem fu nekk ñu ngi ko fay topp loole rek la promoteur yi di wër waaye Ada Fass mu mel ni rek am na loo xam ne manqué na ko muy sax li gën a am solo tey def mbër loole di yar gu mat sëkk. malfaiteur la dinaa la donte mën na li muy def te am nañu yaakaar ci moom jamono ji Ada Fass fu mu nekk rek a jur fa coowa Olof Njaay sax faral na di wax naan bu ñu la rusut nga ànd ak ku ñu rus bopp waaye Ada Fass nekkagul sax champion bu ñuy xaar ci moom mu mel ni jamono ji mu ngi gis boppam mel ni buuru làmb ji jamono ji nga xamante ni rek ay naataangoom ñoom ñu ngi dem di entraîné ji wër doole ngir rek daal di ko fësal ci biir géew gi Ada la mu jiital dafa mel ni rek xar la yenn yi xanaa war na koo mën denc ba combat ba lay ñëwaat. loolee sax jamono ji doon li nga xam ne moom moo ko tekk li mu nekkee adafas teg nañu koy daan ana ay sëriñam ndax ñoom ñooñee daañu ko signel combat ndax daañu ko fayal ay dépense am déedéet sax la ñëpp di wax. làmb dañu si dugg nii pour. Baye Fall yi nii rek mais ragaluñu fuñ jëm. malfaiteeru làmb ji ni mu duppee boppam dafa mel ni rek jamono ji li mu def dara baaxu ca bu ñu koy fàttali ci weeru bu ñu koy fàttali ci weeru janvier ci kanamuk Zarko adafas tegoon nañu koy daan yu ni mel ndax jëf ji ana rek kañ la Ada di taxaw dakkal yi nga xam ne mu ngi koy def loolee laaj la boo xam ne moom kott moom moo ko mën a leeral. waaw waaw jëlal jërëjëf Rewa Saba Ngom jaaree fi nag daanaka teewlu ëtt yi kay. tele ak jaam yéen kaay bari di kat nañ si xët mu njëkk li nga xam mooy déclaration politique bi nga xam ne Sonko ba tey loolee kat mi ngi ci kanamu askan wi Vox Populi ne daal daanaka sax coup d'état parlementaire la député yi bu fekkee ne kat dañoo fas yéene ak loi bu sukkandikoo ci ayib dafee ne daal ñoom ñëpp dañuy coupable haute trahison ba tey ci yéen kaay bi Alioune Tine daal dafa mel ni kat ak crise boo xam ne amul dara loo xa ne kat loo xam ne ay logique partisane wala ay politiciens ñoo ko daal di ngemb bu sukkandikoo ci l'info Thierno Bocoum moom nekk ci donkaas gi ba léegi askan wi dinañ leen loo xam ne kat mënuñu ko ne daal daanaka sax Ousmane Sonko moom bu fekkee ne euh, déclaration politique générale bi def na ko fa nga xam ne kat ci bitik assemblée national loolu kenn dootu ko considéré mu nekk imaanu jëwriñ ji ba tey le quotidien le quotidien ci yaaw Thierno Bocoum lay desandi waxtaan ak seqit xibaar yi ne daal lii nga xam ne kat moo ci domaine public maritime bi ngir mën a waxtaan ci wàllum Azalaï hôtel ne daal Thierno Bocoum hôtel bii daanaka dañ koo tabax ci lu toll rek juróom-ñaari junni ci mètre carré ne loole kat nan la mën a nekkee bu ñu sukkandikoo ba tey laas moom dikkaat na ci li nga xam ne kat mooy entrée en service bi ci tandem Diomaye Sonko ci ñaari fan ci yorom avril nee daal na téeméeri fan bu ñu sukkandikoo ci laasa nee euh, dafa mel ni kat ñoom seen bopp kat dañoo yéex lool ay mbir ki nga xam kat mooy imaan jëwriñ ji Ousmane Sonko ci ay dossiers yoo ne kat état bi moom da cee teg loxo ba tey daanaka sax moom ci boppam koy piloté jamono joo xam ne kat ci téeméeri fan yooyu jomaan dafa mel ni kat dafa réer mëy l'observateur nee daal Diomaye Sonko dafa mel ni kat daanaka sax jant week weer waaye gis gis ne daal mooy imaani jëwriñ ji moom ci ton boo xam kat lu métti gën agressif loolee baw ko neen Ousmane Sonko ba tey daanaka sax dafa mel kat yëre euh, yoo xam ne ay jàppante yoo xam lool loolee sax daanaka mën gën a fës ñaar fukki fan yi ne am na ko ci donkaasi gii ba tey yéene bi nee kat régime bi ci boppam daanaka la mu waxoon ci ay promesse daal France daal di xëddeen Walf Quotidien daal di intéressé wu ci nga xam ne kat mooy chômage yu xale yii daanaka def ak ñàkkum financement ay méthodes yoo xam ne bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien nee na daal jéem nañu waaye baaxul ndax Ousmane ne kat kuy marchand a jege waa DER ñu mën leen financer la tribune nee daal daanaka ci dëgg la def daal di bloqué li nga xam ne mooy yoon yi jaarle ko ci yaa jaba yii ba les économies ne kat dëgg la ndax Ousmane Sonko moo dóor ci taabal bi moom nga xam ne kat da doon jàppale marchés ambulants yi tey du mooyu ne daal kenn du ko pression amul boo xam ne kat dana jàll enquête ba tey xam ne kat mooy wàllum jaay ginaar ci xam ne kat ñoroon marché bi daanaka sax ñi ngi koy a perte léegi le soleil ne daal ki nga xam xam mooy kat mooy Abdourahmane Diouf moom kat kontaan la loolu la def ci xam mooy tàmbali euh, épreuve ndax am na 159 487 candidats yoo xam ne teew nañu fa ba tey libération na ko dëgg la waaye tolloog rek juróom benn fukki ñoom dañoo yoroon téléphone portable te téléphone dañ koy daal di ci libération lay dese daal scandale bi nga xam ne mooy réservation DG ci projet SICAP Sacré-Cœur 3 ci VDN extension 2 daanaka lu tolloog fukki logement ak juróom liggéey ci wàllum yoon waa Cour des comptes ñoo fësal loolee ci wàllum tàggat yaram stade quotidien dikkaat na ci nga xam mooy Copa America ne daal boo deful nank Messi du bokk jàngeen jëf jërëjëf Momar Diaye fi buur jotaayu xibaar yi jaajëfal leen lu baax ci teewlu bi ànd beeg 7TV amoon ci ak Kajoor Cissé. jaajëf Suzanne ñu ngi jaajëfal mbokk yi ñu doon teewlu itam. dig daje ci kanam tuuti yi xibaar yi ci tënk juróom waxtu la doon ci kàllaame nasaraan ak wolof jaa ngeen jëf.